di nuyu ki nga xamne moy jité quartier bi nek sama do di nuyu borom xam-xam yi ak kilifa yi ak jamiyaat yi nga xamne ne ñoom ñëpp ñu ngi téw maa ci gis suñu sëriñ di borom xam-xam bu mag bu xam xam leer muy oustaz sambu maa ko ñu nuyu bu ko bëggee di mo mbooleem kilifa yi ak borom xam-xam yi téw waxtaan bi nag tey dañ ko bëggoon a ci alquran ak i jafe-jafeem ak taxawaay bi nga xam ne moom la ci jàngalekat yi war a taxaw moom la ci jullit yëpp war taxawee jotaay mel nii war nañu duut baaraam ci point yu mel noonu ba nit ñi gën a xam alquran ak ban taxawaay lañ ci war a am balaa boobu rek li ñu mooy wane kan mooy jàngalekat alquran jàngalekat alquran mooy nit kooku nga xam ne yàlla dafa dogal mu am yërmande ci mbindeef bi moo tax yàlla ba muy layal ne moom arrahman la tudd def ne parce que allama alquran mu xool gis ne mënul jox jaamu yàlla yi lu ëpp alquran wala lu mel ni moom mënul leen a njëriñ lu mel ni fexe jàng alquran jàngal leen ndax xam alquran di ko jëfee dara xale ko kaw su ko defee mu góorgóorlu ndawam lépp mu def ko ci jàng alquran ak gëstu ko. ba mu demee ba yàlla may ko ci tere mu indil ko nit ñi pour njëriñ leen yërmaande boobu moo ko dugal ci jàngale yërmaande boobu nag ak yéene bu rëy boobu moo tax képp koo xam ne jàngale jàngalekat alquran la dëgg-dëgg da ngay gis ne lu mu indi rek du ko doy la jàng kat alquran dafa war a nekk waajur yi nga xam ne lépp lu mu gis mu manqué ci dëkkam dana ko wuti ngir andil ko nit ñi ci wàllu xam-xam ak ci wàllu alquran ci misaal bu doon dëkk bi xafsa rek fi rek da nga ko gis moom mu dem jàngi fexe ko su andil ko yi nga xam ne nii alquran rek moo leen tax a jóg bu demee ba mu gis ne lim soxla ci alquran ne nit ñaa koy jàngee nit ñaa ci góorgóorlu dañ ko gis mu góorgóorlu ci fànn xam-xam yi pour andil ko taalibe yooyu nga xam ne yërëm leen moo tax mu bëgg leen jàngal alquran kii mooy jàngalekat alquran ne dafa bëgg jëriñ jaam te gis ne mënu leen defal lu ëpp jox leen xam-xam jox leen alquran su boobaa lu ak ci yëkkati yitteem pour indi leen li manqué dana ko def te yitteem yëpp mooy baatu yàlla faree kaw kii mooy jàngalekat alxuraan war na nag ci yéen ñi ñu gisee ku nii ñu xam ne ko ci yooyu alxuraan la bokk ñu dimbale ko dimbale ko ci seen doole ku ci am xam-xam boo ko mën yokk dimbale ko ci ndax xam-xam bi doole kuamtala bomo yokku yamlele kadi alquran jokko ko ku am alal joko mën a jox jox ko ko kenn ku nekk rek war ngaa fexe dimbale kooku moo xam sa doom mën ca daara ne wala nekk buñ demee nag ba demeewul noonu daara ñu nekk ña fa nekk buñ jàpp ne liggéey moo leen moo leen ustaas nañ jàpp ne dañoo ñëwul pour mbay seen waar ci alquran fas yéene dëgëral daara jooju dimbale ko jiital intérêt daara ji waaye bu kenn ci parent la di jiital intérêt personnel la loolu su ko defee alxuraan dina dëgër jàngale jàngalekat alxuraan yi nag ñoom ñooy jihaad jihaad bi gën a mag am na loo xam ne dafa mel ni moo gën a métti ci bakkan waaye mooy bu ndaw bi mooy yow sa jaase dem ca toolu xare ba di xeex ba sa tànk nag di xeex ba sa bakkan tuuru di xeex ba sa loxo dagg nga ñàkk ci sa alal ñàkk ci njaboot yonentu nee na loolu mooy jihaad bu ndaw bi ñu ne ko lan mooy jihaad bu mag bi mu ne mooy fexe ba yor bakkan yi ci loolu la jàngalekati alquran yi nekk ñii bu ndaw bi lan la yàlla wax seen daf ne wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu daan jihaat yi dañoo ne woon doole amuñ alal ah yàlla ne bu ngeen rey seen bopp jël leen seen alal ngeen jox ko ñii di xeex ci yoonu yàlla ngir ñu dimbali kooku su ngeen def loolu bàyyi leen ñu nekk ay miskin ñu amul doole bu ñu demee ci xare ba ñu rey leen su boobaa yéen ngeen a rey seen bopp su fekkee jihaat bu ndaw bi. bañ mu yàqu tax na yàlla santaane génne sa alal def ci waxuma laa jihaad bu mag bi mooy yar bakkan kon mu mel ni tey alquran yi wax dir ñëpp na leen société bi ngeen ñi ci gën a doole mooy sëriñ daara ñi ci gën a defal gannaaw mooy sëriñ daara ñi ci gën a sonn mooy sëriñ not nañ leen ci façon noteel bu nekk teg leen ba teg leen loo xam ne warut mu mujj mel ni lu war kon nag yéen borom doole yi yëkkati leen seen alal ngeen def ko ci daara yooyu bu ngeen ko defut da rey seen bopp rey seen bopp mooy bakkan yi dañu sëkk jikko yi danañ yàqu nit ñi danañ wan gannaaw mbaax su boobaa du ngeen mën a amati njiit mu baax ndax yaruñ ko su boobaa du ngeen mën a jëflanteeg koo xam ne seen xol dana ci sedd ndax yaruñ ko su boobaa mën ngaa liggéey sa al ba ñu xëy xëy sàcc ko parce que société bi yaruñu su boobaa mën ngaa nekk sa jàmm ngir ñëw rek rey la ndax yar amul kon su ko defee li war mooy ñu génnee alal def ko ci daara yi ngir dimbale ko seen daara yi loolu mooy wa anfiqu la sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka ñaata xale lañ jël alal ñu bëri def ñoom yóbbu leen bitim réew ñii di jëfandikoo dorog ñii di naan sàngara ñii di ci bon ba seen dund yëpp mu ngi yàqu waaye ñu ngi seen xol tàng parce que lan que yaruñ leen ci yaru lislaam kon il faut ñu dimbalee daara yi te sabilullahi sax seen daara yi ci lañ bokk boo demee siraaju saari mu ngi wax ne asaka dañ ko war a jox ñu nekk ci jëwu xam-xam di ci yëngatu même bu fekkee dañoo riis dañoo am alal ndax daara dañ ko war a dooleel même bu dee am nañ alal dañ leen war a jox asaka lu tax parce que sëriñ daara bi lu mu am ci alal rek doyul lu mu am ci alal doyul ndax bu tabaxee daara bi ba daara bi dëppoog jamono war naa am école école boobu war naa màgg ba am université ngir képp ku bëgg a jàng nga mën a jàng jàng mu ñoom mu mucc ayib te loolu ku ne xam ne budget boo ko doon xayma ay milliards a koy def kon nga gën a nit yi war nañoo gëstuwaat seen daara waaye loolu yéen bàyyi ñu nekk miskin yi néew doole yoo xam ne ñu ngi ne ngeen jënd leen waaye jox ñu dimbali leen war nañoo dem ba romb bu jotaay amee ñooy daara yi ñoo sonn kon dañ leen dimbal ndax dañuy daara yi war nañu dimbalewaat borom bi subhanahu wa taala moom bëggee ñu topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga lan la def daf koo màggal tàgg ko dem ba ne boo jaayanteeg moom yàlla nga jaayanteeg wax ñëpp ñu màggal yonente boobu yonente bi moom bëggee ñu topp borom xam-xam yi xam nga lu def daf leen a màggal jox leen seen cër kon foo nit ñi wet jàngalekat alquran yi leen teg leen cër bu kawe kawe ndax ñu mën a topp ndax aadaay doomu aadama lu màggut ci xolam du ko topp kon ñu yare di jàngale ñooñu war nañoo fexe lépp luy tax ñu màgg ci xoli doomu aadama yi ñu nekk su ko defee moo tax maa ngi woo mbooloo mi ñëpp ñu daara yi ak sëriñ daara yi xoolaat doxalin bi nga xam ne nii mu ngi xew ndax lu naa xoolaat te dafa mel ni point bi ni ñu ko war a laalee gis naa ne des na ban sëriñ daara bi ñun ñëpp xam nañ ne la ñu di jàngal mooy waajur wu nekk yaa war a dundal sa yaa ko war a dundal ba mu ma ma ta réew jigéen ba mu am borom kër nga jël ko borom kër waaye ñu ngi ci jamono joo xam ne ni boo yóbbee sa doom ci daara dafa mel ni yow dund wàcc na parce que seen daara bi moo koy dundal di ko jox mu lekk di ko jox mu naan di ko jox dëkkuwaay di fay courant ba pare di ko jàngal loolu lépp ci somme bi ñu koy fay mu wóor leen ne somme bi nga koy fay. matut fay jàngaleen kese waxuma laa dundu xale ba ñu xam tamit ñoo wax ne jàngalekat alaaji Abdoulaye Niass radiyallaahu anhu bind na ko borom taalim andi na ko xarab bu ñu jàngale junne dërëm na ko ci war a jox xarab bu nekk loolu moo doon àq sëriñ daara bu fekkoon ne mu ngi laaj te loolu sax ñi xam dañ ne bokk ko joxee bu ko jàppee fay jàppee ko andi ndax ba léegi ak xam des na koo xam ne nii bu doon kese xaram bu mu jàngale nga jox ko dërëm nga jox ko junne dërëm mu boole jàngale mi nag ak dundal sa la ko war a jox la doon yoon tey ci Sénégal mooy kër gi seen daara bi nekk di ko nuyu parents d'élèves bi ñoo ko fay wala moo ko nekk dund bi ñoom ñoo ko war a joxe parce que loolu dundal xale yi toppatoo bi li war yëpp. ñoom ñoo koy joxe parce que seen doom la la ci ñoom ñoom la war seen daara bi jàngale rek moo ko war waaye xam ngeen ne benn daara du koy noonu te néew na jooy ñoom te fekk borom daara yi dimbalewul ay nit nit di leen dundal te fekk fay dara ñeneen ñi dañuy fay waaye dañuy fay bokkut ak lu ñu leen di daara yi daara ji la ak daara ji ëpp na lool kon loolu daara yooyu dëgg la gàcc daara mu ñoom jéem nañ bay nañ seen waar ci lislaam waaye nit war nañ leen war a dimbale duñ leen foofu nag léegi dañuy ñëw ci ab daara fekk moom def na lu mën yëpp genn wàllu daara yëpp daf leen dimbale ñu ñëw fekk lu man ci te yow mi ñëw am nga doole au lieu ne sëriñ daara bi amul doole xaaral ma dimbale ko mu génn ci location xaaral ma fexe daara bi dëgër nga di ko xasee condition bi mat te moo tax joxuñ ko lu mat moom dafa dimbale xale yi yor leen ñenn ñenn ñooy fay lu mat nga ñëw xasee ko say condition matu xaaral ma dem wuti boo xam ni condition mat na te pourtant xam-xam bi mat na jàngale mi mën fa yaraati bi mën ko nga ne yelloo ko waaye dooleem matewul ko au lieu nga dimbale ko bu am doole nga yedd ko su ko defee ñu noonu gis naa ne war naa dañ war naa jeex ba daara dëgër am doole suñu daara bu nekk nag dama jàpp ne war a nekk yitteem mooy lu daara pas lu gërëm loo ndax ku ne daara yàlla lay jàmm lislaam lay liggéeyal kon kenn ku nekk daara jël la jox jàppal ne mooy sa waar ci lislaam jëlal sa yitte nga def ko ci dëgëral daara yooyu paa ci lu gën diw wala diw wala diw ñaata sëriñ daara yu la duggee kër goo xam ne wóor na leen ne buñ ko fayee génn seen dund dundu xale yi def lu ñu war a def daara yooyu lu mos a génn ci ñu dëkk ci loolu ngir lan ngir ñoŋeel seen dund ak diir jàpp ne bu njëriñ kër bu seer boobu wala woon image bu rafet boobu duñ am xale yu jàngal loolu ba jàpp naa ne war nañ see génn sëñ daara bu nekk lu toll ni kàtt na la war a jël kër boobu kër boo xam ne lu toll nañ sa jàmm laay kàtt defal li nga mën bu dee yàlla ñuy liggéeyal bu dee yàlla bu ñuy liggéeyal woon dana la dimbale xiima bi leen ñu jox nekkul ci kër gi nga leen wane nekkul ci dund bu neex bi nekkul ci image bu rafet bi ngay wane te nekkul ci yow xiima bi dëgg dëgg mu ngi sa liggéey yàlla ne wa qul i'malu fa sayara llahu amalakum wa rasuluhu wal muminun liggéey leen yàlla dana gis li ngeen liggéey yonentu dana ko gis dana ko wan ñi gëm ñu gëm liggéey bu baax boobu mooy tax nga mag mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si njëlbee na méthode ci la commencé taxul mu waree lu nekkul ci boppam waaye saxaaba yi taxul ñu daw ko ñaata at la jullit ñi nekk ci njàqare ndax nit ñi wax nañ ne Muhammad dafay xalak ñooñam déedéet ñaata at la jullit ñi nekk ak néew doole ndax wax a ne yonent bi dafay toroxal ak ñooñam kon bu kenn topp déedéet jullit ñi toll nañ jamono boo xam ne keroog xare tëbu te fekk na ubbi nañ màkk sax ba ñu dem ca xare ba ay xob la ñoo lekk ba seen jullit yi leen jullit yi dund nañ jamono yoo xam ne ay ñax la lekk ba nit bu demee gannaaw kër sax da nga yaakaar fii béy moo fi jàpp waaye loolu lépp boo ko yore bu ñëwee fa mujj mooy doole bi nga xam ne nii mu ngi doon wut pour islam yàlla na point bi ngeen wax mooy ñun sëriñ daara yi bokk sëriñ daara yi nañ yittoo dëgëral daara faa gërëm loo parent d'élève parent d'élève bi nañ yittoo màggal daara ji ak dooleem faa kontaan loolu seen doom ja fa nekk daara ju nekk dafay dem kenn dooleem nit ku nekk dafay dem kenn laay sa kattan waaye nag ñi ngi def ay jéego ngir jafe-jafe yooyu jeex wala mu wàññeeku su ko defee point boobu bëggoon naa euh, oustaz yi kon ñu mel ni oustaz Samb ngeen ci waxtaan lu bëri ndax yéen ñoo ngi wax xam-xam yi man mooy gisee sax dama koy wàcc dégg nga bu ma wax sa kanam xam naa ne am na ñeneen ñu may ñëw ñu nekk ci biir jotaay bi te xaw ma leen su ko defee loolu maa ngi ñaan nit ñëpp góorgóorlu bu ñu góorgóorlu ëllëg dañu am islam bu dëgër. mu daan bu gawe borom xam-xam yi daan nañu wax a ku ne a ne yàlla wax na ko ne lu doon Alxuraan warul daw ci gannaaw kenn warul am aaju ci benn mbindeef moo xam buur la moo xam président la moo xam borom alal la ndax ñoo fay kaw ñëpp mission bi gën a kawe ci seen loxo la nekk te yàlla dafa wax ne walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil muminina kon su ko defee buñ loolu loo nitu Alxuraan yi lu ñu bëgg buntu ñooy àdduna waaye ñooñu àddina ñoo di fëgg buntu nitu alquran yi loolu mooy tax mooy tax ñu xormaal ko te loolu pour mu nekk nag foo jullit ñu dimbalee alquran dimbalee ñooñu alquran su ko li tax nag ma ne alquran jar lii war nañ koo xormaalee lii parce que moom rek mooy discours bi nga xam ne njëriñu adduna ak àllaaxira ci biiram la nekk man seetlu naa ma jàng ci taarix lépp la ko tax a tooñ la ko gën nguur yëpp la nguur arab ak nguur yi juif yi dañ daan def ku ñëpp doole not la pour seen nguur la lañ tooñ ko dund ba adduna bi ñëpp doole réew yi am ñu ngi mbëggatu ñu néew doole pour dund tubaab yaa ngi doon wut africain yi. ñee ngi taali guerre loolu lépp mën a dund. réew Afrique yi amul doole ña nekk ci kaw ñu ngi mbëggatu ñu nekk ci suuf pour sax pour dund kon système bu mën a andi ñëpp nekk ci jàmm te avancement am kooku lislaam rek la yàlla bindul ni bàyyi ñu ak waxul ñu la ñuy def pour ñu mun ci jàmm ak salaam borom xam-xam yaa ngi nii masala adduna moo leen laaj lii la ci islam wax lii la ci alquran wax lii la ci hadis yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax kon su ko defee lii defar adduna yàlla jàngal nañu ko su boobaa war nañoo yittewoo islam boobu fexe ba ëllëg Sénégal du ko atte pour ñu mën a nekk ci jàmm ñëpp ñëpp nekk ci jàmm ñëpp yemoo foofu ci lislaam rek la moom la bàyyi doon wax ci jamonoom dafa am ay nit yu ñu doon joxañ yéen leen lool ba du suñu politique bàyyi ne comment nag ba yoon aw la yoon wa markasu bi mu waxan ilayhim xam ni anka xabaana ñii ngeen yéem di leen naw yàlla waxewul leen xel rek lañ yore mën naa am lu ci baax am lu ci bon waaye lu baax te amul lenn lu bon baanirul alquran rek la kitaabu min laa yantahi biraaluhu dina qadim wa baqin laa yaxaafu zawaala jàppal ci alquran bi nga xam ne téere la mu jógee ci yàlla mosul fee ñàkk a nekk te du mos a jógee problème yëpp rek la ko discours la pour jamono yëpp discours la pour dégg nga nit ñëpp pour xeet yëpp pour ba faw nañ fexe jàpp ci alquran yooyu fexe nag dëppalewaat jàngale ba alquran ak système bi bala ci jamono mooy xale yi jàng français am diplôme ni tubaab yi di am te teewul ñu ngi jàng seen diine li ñu ko war a jàngee yaru yarum lislaam bu ëllëgee bu ñu waree laaj dara ci réew mi ñu mën koo laaj su a xale yooyu bu màggee mën nañoo soppi te muy soppi jàmm am bu dul bu ko defee war ba ñu def alquran ni ñu ko waxoon bu leen sa gannaaw rek la may teg boo amee soxla rek ñëw bu ñu def alquran yoo xam ñu ngi alquran ne bu ñu amee soxla ñëw ci ñoom suñ paree wala leen euh, ku leen màggal màggal nga yàlla màggal ku ne jàppale ma jàppale nga ñaari jàppale tënk bi mooy ku nekk ci daara bu ne fas yéene dimbale daara ji fas yéene la manque ci daara ja yow nga def ko ci waaye bul xas sëriñ daara loolu dina koo xam ne rek loolu ma jël am nga doole lii manque la ci daara amit ko fekk nga sëriñ daara bi mu ñëwee fexeel mu génn ci location bi fexeel nit daara yi nit ñi naw leen pour que ñu mën a yegg ñu fi jëm yow sëriñ daara bi defal li nga mën li nga mënul yàlla lu sox laa yukallifu laahu nafsan illaa wusaha yàlla tegu benn bakkan lu mooy li mën yow sëriñ daara bi xoolal nooy def ba daara ji am teere xoolal nooy def ba daara ji nga tabax ko tabax boo xam ne dina dëppoo jamono xoolal nooy def ba paradel bi bu kenn fayi woon yow moom mën a dundal xale yi su ko defee doole jooju mu bu ko amee rek incha allah rabbi kenn dootu yabati daara te danañ mën a organisation bu ma ko conférence am lépp ba ëllëg lu mën a laaj ci réew mi doomu daara yu bokk ci waaye war nañ dépassé dajee dañoo dimbale daara yu parce que dañoo néew doole dañ dimbale suñu daara côté boobu war nañu si waxtaan jamiyee bu nekk ñu xool naka la la ñu def ba génn ci néew doole gi dem ci am doole par ñu sécurité suñu dund jamiyaa bi war naa xool naka la ñu ñaata suñu daara ñu am terrain te jamiyee bi lañ ko jëlee par naka suñu daara yi def lu ñu génn ci location te jamiyee bi moo tax côté boobu war nañ cee xalaat ñu ngi naan jigéen maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jégalu asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh